Musa Baale aka saar mooy ndeyu mbër jaara ki doomam ñoo jël ndam li ñoo amit jërëjëfate jaara ki doomam ñoo jël ndam li ñoo amit jërëjëfate jaara ki doomam ñoo jël ndam li ñoo amit jërëjëfate alaagi doomam ñoo jël ndam re ñoo amin jërëjëfate alaagi doomam ñoo jël ndam le ñoo jël jafate moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñi tuba yu ñoo amiin ama jara jafate soxna jaara la gën mboolem ko sol tuba yit bamba ko gën jara jafate bamba ko gën boobu wax ji wér gi dem na dayoo ñoo amiin bilaay jara jafate yow soxna jaara yaa ko waral yaa amiin. ak jërëjëfate. doo ma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone yi yaa amiin. jëfate. doo ma gën ñëpp yaa gën mag ñi gën yaa amiin. jëfate. doo ma gën ñëpp baale mooy ndeyu mbër. umul xayri jaaraaki doomam moo jël ndam yow soxna jaara begal taw nga ñoroot na asal yaa amiin dara jafate जोर का जब जब राम मौत जब होया मिलाई जर जब टे या जोर का जब जब राम मौत जब होया लगला जर जब टे या जोर का जब जब राम मौत जब होया लगला जर जब टे कर की दाम हम नो जल दम ले जो अमित जर जब टे Talla ki doomam ñoo jël ndam li ñoomit jërëjëf de góor ak jigéen ak mag ak ndaw koo fi gis mi ngi jag yaa ame laay jërëjëf de yaa waral jëpp jag baykat nga bay nga bay yaa ame dëgg laa jërëjëf de xamal ne waa penk ak soowu ñëpp a ngi mos yaa ame laay jërëjëf de sam liggéey ak a bég yow doo ko dee fi mayu yaa ame jëfate jaraat gi doomam ñoo jël ndam li ñoo amit jara jëfate jaraat gi doomam ñoo jël ndam li ñoo amit jara jëfate ñoo amit jara jëfate ñoo amit jara jëfate ñoo amit jara jëfate jërëjëfate amit bilaay jërëjëfate amit jërëjëfate maam jaara jërëjëf nga ni ma